يا أيها الناس ارجعوا إلى ربكم دون بكنا نولا جملين سيدي بار أما يا ارجعوا إلى ربكم دون بكنا نولا جملين سيدي بار حمام keroog bu ñuy paree dem xaybu ba di sukuraat yal nang fa teew jox ñu yónneen sidi baar am ne ko dee ci reer tere nit ñi reer te moom dootul reer xamru laay lu ngeen ci maan sidi baar a xammaa kullu nafsin saariqati l mawti yaa ayyuhan ne garab ak dee moo de ñàkka juddu déegi moom du jaas doo gis boppa geen ba ñëw naa siidi mbaar amma na ko jaawul leen ma murit sa diix bi baaba yaasin cubbu tiijaan baa nga yelli di baar am mana ko samedi ja ca min wi ba baabay toll ci sukuraat haatif ba daw téléphone